لكم كتمت في هذا الأطلاق لكن تجليت dafa am ñaari phase nag kooku moo tax léegi nag moom kooku nag mam defee loolu moom moo ñu branché ñoom ñu am siru xam ruuxu xam xel xam xol taxaw ni nag fa tama xalaat laa wa nafsin wa ma li ngi nii nag taxaw